ñun ba ñuy defar loi bi dañoo contacté woon pour de façon inclusive pour wax ci suñu xalaat bi mu paree aussi bon defar nañu bi mu paree loi bi mi ngi nii voté nañ ko nii ba pare léegi plateforme bi dinañu neex parce que suñu association parce que euh, maa ngi bokk comité des femmes euh, de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées dañu épouse découpage administratif bu Sénégal yëpp cest on est dans les régions on est dans les départements on est dans les euh, communes d'arrondissement donc loi bi day doon lo xamné ne lu lu lu jaar lay ça veut dire ñëpp tout le monde sera impliqué ñëpp fi nga dëkk dinañ ñëw ci sa commune euh, vraiment loi bi nek kii bi plateforme bi di nga xam li ci li ci war rek te ñun euh, de façon bi qu'on koy souvent on est dans l'informel et plateforme dina la jàppale ba nga formaliser donc loolu man je trouve que c'est une bonne chose te ñun ñi en tant que femme handicapée gis nañ ci su dinañ ci gis suñ bopp bu baax a baax